te taxawaayu kenn ci saxaaba yi atte jum mën a doon na fekk mu tegee ci lu wér walla lu gën a néew mu tegee boog ci yéene ju wér waaye juum ci lu tuuti su fekkee ne ñu ngi xool fitna am ci rey amirul muminin Osman yee ko wër ñu bëgg ca xuus ba génn ca te duñ ca takk lu xew diggante kàngaamay saxaaba yi comme niñ ko gisee ci li weesu diggante ay nit ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa seedeel na kenn ku nekk ci ñoom aljana mu ngiy dund ay jaasi jàmmarloo ci seen diggante lim bu rëy boobu ngeen déggoon dee ci ci lim boobu yépp ñun ñu war a jàpp ne mboolem ña cey saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu war a jàpp ne ñoom waa aljana lañu ñooñu wax ci seen der wax ju war a am jubluwaay bu sell la wara a doon te itam prudence bu mat sëkk la war a àndal su ma nee mboolem saxaaba ya dee ñu nekk waa aljana lu tax ahlu sunna wal jamaa mooy gëm ne insha allah saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa aljana lañ te loolu ibnu xasm rahimahullah dafa ci indi benn tegtal bu xam ne jéggi ko wax lu loolu day jafe tegtal boobu mooy fi yàlla subhanahu wa taala wax ci suratul hadid laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal ulaika asamu darajatan min alladina anfaqu min baadu wa qaatalu lu ca tegu wa kullan waada allahu alxusna wa kullan waada allahu alxusna sahaaba yi ñaari catégorie la ñu catégorie bi nga xam ne dafa dépensé alalam xeex ci yoonu yàlla lu jiitu ubbi màkka ak ak catégorie bi nga xam ne dañoo xeex ci yoonu yàlla dépensé seeni alal gannaaw ubbi màkka yàlla ne du ñu yem yàlla ne ñi nga xam ne dañoo jihaat ci yoonu yàlla dépensé seeni alal ci yoonu yàlla lu jur lu jiitu ubbi màkka du ñu yem ñi nga xam ne dañoo dépensé seeni alal xeex ci yoonu yàlla gannaaw ubbi màkka kon am na tendance bu gën a kowe waaye yàlla indi benn kàddu ne waaye nag képp kenn ci ñaari groupe yooyu yàlla dig na ko xos naa mooy lan ulama ut tafsir li ñu fi li ñu firee xusnaa bi fii mooy aljana yàlla na waaye wa lan képp kenn ci ñaari groupe yooyu groupe bi ëpp ngëneel féete féete kaw ak groupe bi ñu ëpp ngëneel mu féete suuf képp kenn ci ñaari groupe yooyu yàlla dig na ko aljana kon ndax ñun ñem nañoo seppi kenn ci saxaaba yi ñu ne bokkul ci waa aljana abadan sahi ni ñu sañ dogoo ci benn benn jëmm yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na leen ci seeni tur sañu ñoo dogoo ci benn benn yi ci des dog hin wuni mel waaye ci globalité bi sañ nañu wala généralité bi sañ nañuy dogu ci tegtal yi ñu dégg ak yudul yooyu ci alquran bari lool jëlal missal ci suratu tawba yàlla subhanahu wa taala bi muy wax njëggalam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dooy na tedd nga dooy na ndam dooy na ngóora saxaaba yi yàlla toftale jéggal gum leen jéggal ak jéggal gumu jéggal yonent bi yàlla toftaleen laqad taaba allahu ala annabiyi lu ca tegu wal muhaajirina والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة yàlla mu ne jéggal na yonent bi ak muhaajiroon ak ansaar ñooñu nga xam ne ñoo ko toppoon ca jamono jafe-jafe ya ñooñu toppoon ko mbokk yi ñoo desoon Madina ñooña ñoo nekkoon Madina ak la ko war booba de mooy armée bi nga xam ne ci xaswatu Tabuk l'islam dajalewut lu jiitu xare boobu lim bu ne toll muy fanweeri junne te bokk na ci yiy teg tale ne mboolem saxaaba yi foofu woon nañu dem xanaa lu dul naafeq te yenn naafeq yi sax duggoon nañ ci lan mooy teg tale ne ñoom ñëpp foofu woon nañu dem jëlal ñaari tegtal benn bi mooy yonent bi dafa noonu Ali ibn Abi Talib nag ma fi wuutu Ali mu ne yonent bi dag ma fee bëgg a bàyyi ak xale yeeg jigéen yi ak ñi nga xam ne yàllaa leen nangul ngànt wala naafeq yi yonent bi ne ko xanaa kontaanoo ci nga nekk ci man place bu mel na ba mu na nekkoon ci Muusa keroog ba Muusa di dem di wuy ji woote borom bi te ne ko nang ma nekk ci sama njaboot yow itam ma wax la kàddu googu lu dul ne rek différence bi mooy yonent amut sama gannaaw kon kàddu Aliyu googu yëgoon nañu ne ñeneen ñi ñëpp foofu woon nañu beneen dalil bi mooy kàddu kaabum nu Malik ñoom ñett ñooñu nga xam ne dañoo wuute woon demuñu kaabum nu Malik Euh, ak Hilaal ibnu Ubayya ak Maraara ah Maraaratum na ñii ñett Kaab Maalik lan la wax ne moo ko metti woon mu ne gannaaw bi yonent bi ñépp demee bokk na ci li gënoon a tàng sama xol su ma génnee ci mbedd ma dinañ kenn ci ñaari nit ñi rek laay gis ko yàlla nangul ngant ndax ak eh, ma manqueem wala ku ñu jëm ci naafiq mu ne ñii laa desat ci Madina kon wér na kon saaba yi demoon na te ñooñu ñëpp yàlla maasale leen ak njéggal toftal leen directement ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne kon waxtaanee ci ñu ni mel juum ca la nga leen atteel danse la waaye nag loola du tee danse yooyu du tee fokk ñu war a waxtaane seen jaar-jaar yu metti yooyu ngir ay jubluwaay jubluwaay bi ci jiitu mooy na sunu yéene nekk ci waxtaane gi ñuy waxtaane jaar-jaar yu metti yooyu ci saxaaba yi ne sunu yéene mooy défendre leen défendre leen défendre leen ci ne lu baree bari lu nit ay nit occasionné moo xam ci réer walla ci jubluwaay ak fasoo ko occasionné ko ci xew-xew yi ba wax yu ñaaw ci ñoom ñu défendre leen ne yooyu ñu wax du dëgg yee ñu leen taqal du dëgg fa ñu leen classé nekkuñu fa dañuy fekk ne saxaaba yi ridwanullahi ci ñoom la yàlla dogal lislaam jógee ci gémmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa dem ci nopp yeneen ndax bi mu jógee ci gémmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa ci seeni nopp la sotteeku ay jëfam seeni bët a ko enregistré ñoom ñu toxal ko yeggale ko ci xeet wi ñooñu kon wax ci ñoom ay njubadi ay jubluwaay yu ñaaw ay taxawaay yu du dëgg li muy firi mooy ñooñu matatuñu seede ci li ñuy jottali matatuñu seede ci li ñuy jottali ndax nit ñu mal intentionné lañ ñu seen yéene baaxut lañu ñu jubadi woon ci seeni jëflante lañu ñu àdduna yëkkati woon ak topp bakkan lañu kon nan lañ leen di wóoloo ci diina yàlla ñi wa bittaali buñ leen ci wóoluwut ci toxal gi ñu toxal diina yàlla ñi keneen kuñ cee wóoloo te keneen toxalu ko ku dul ñoom bi maanaa kon résultat bi mooy ndekk liñ ñu jottali ne mooy diina yàlla dara wóoru ci gis ngeen gravité bi tax na sunu jubluwaay bu njëkk mooy nañu seetal saxaaba yi ci mboolem yu ñaaw yu xam ne occasionné nañ ko ci xew-xew yi moo xam ka ko def jublu na ko wala jubluwu ko boo wax ci seeni der lu yelloowul ak seen àq ñun ñu fas yéene jàngat dëggantaan mbir ya na mu amee woon ak na mu rafetee ci seen der gaaral ko gaaralin wu xam ne dafay wane taarub lislaam dafay wane màgg ak koweeg yarub yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay gaa yu mu yar loolu tax na bu ñu xoolee wax ji nii ne setala saxaaba yi défendre leen day niru mbir mu woyof waaye dama bëgg maag yéen ñu ànd dellu gannaaw tuuti te xam ne ñi gën a occasionné ci xew-xew yooyu moom mooy ñi ñu tuddee chia yi les chiites rafida ñooñu xam ngeen ne occasionné nañ ci xew kew yi ba wax ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi yépp fitna yi yóbbu na leen yóbbu leen ba ñu murtad ba mu des juróom ànd li gën a wér ci nett di borom xam yi dañu ne nombre saxaaba yi cent quatorze mille la ñu cent quatorze mille buñ ne cent quatorze mille ñoom ñu ne fitna yi yóbbu na leen ba ñu murtade ba mu des ali ibnu abi talib al miqdaad ibnu amr abdullah ibnu mas'ud Ammar ibn Yaasir Salmaanul Farisi ñu ne ñii ñoo ci mucc ñii ñoo mucc ci murtad ga waaye ñi ci des yëpp ay yéeféer lañu am ci ñoom ñu xam ne xaw nañoo yolomal ba ne déeréet ñi desoon ci mur bañ a murtad kay matoon nañu fukk ak benn waaye nañu xool cent quatorze mille ñu accusé leen lii tuddee Aboubacar ak Omar al jibt wa taaxuut ne ci kéeféer nañu dund ci lañu dee bi maanaam kan ngaam yi gën a kowe ci saxaaba yi ñëpp ñëpp ñëpp ñu boole leen teg si loolu te ñooñu ñooy ñi toxal alquran ak sunna mu ñëw ci ñun dañuy taxaw gannaaw gi ñu ne kon fitna yii yóbbu na suñu toxalkat yi diina yi ba ñoom ñëm ñu nekk ay yéeféer ci lan lañuy jàppati comme diina ndax ñii kon jaaduwul ñu waxtaane dëggantaan li xewoon ci seen fitna yi sans par parlanton sans sans ñu jeexitalu ci sos yi ñu sos ci ñoom ngir défendre leen bu boobaa défendre sunu diina la parce que bu fekkee juróom yooyu ñoo des ci lislaam bi maanaa kon bépp xadis bu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi bu xam ne juróom yooyu nettali wuñ ko du wér ndax ay yéefee la ko nar nettali ba pare olbatiku ñoom seet yooyu même juróom yi ñu tudd la leen Buxaari yu muslim solool ak ñu dul ñooñu ba tey itam du wér parce que considéré wuñu Buxaari yu muslim lan mooy desat suñu diina kon fii la ñuy xamee noonu lislaam yi li ñu wiisee li ñu wiisee ci lislaam ci mbir yu ñaaw yi ñuy tudd ci xew-xew yi xew diggante saxaaba yi kon défendre saxaaba yi leeral bu baax a baax li nekk ci ñoom yéene jooju dafa war a lal waxtaane gi ñuy waxtaane seen jaar-jaar yu metti yooya waaye nag indi ko ci façon ba gën a sell ba gën a mànd mbir mi su yemoon foofu mu gën a yomb waaye xam ngeen ne rafida yooyu di chia itnay achara te ba léegi ñu ngi dund ak ñun ci àdduna bi di beesal seeni wax di confirmer la leen féete woon mag waxoon ñoom yëg nañu fu gën a garaaw foofu dañu ne même alquran yii ñuy jàng dafa am falsification xam ngeen ne am na kenn ci ñoom ku màgg lool ci ñoom taalif benn téere lum ko tuddee faslul xitaab في إثبات tahrif kitaabi rabbil arbaab wax ju dog juy saxal firnde yu leer ci ne téere borom borom yi buuru buur yi téeréem dañ ko falsifié muy alquran bal ci seen téere bu ñuy wax alkaafi pour nga xam alkaafi fu mu toll ci chia yi mu ngi toll ak saxiixul buxaari yi fu mu toll ci waa sunna ma ne seen téere boobu wax nañ ca lu ñu askane abu jaafar as sadiq te mu set ca wecc moom abu jaafar mu ngi bokk set ali ibn abi talib wér na ne dañ koo sosal wax ko ko wax ko waaye waxu ko dañu ne abu jaafar nee na alquran ji ñu yoor ci loxoy jullit yi dafa war a toll ci un tiers maanaam sulus alquran ju mat sëkk ji nga xam ne moom la yàlla wàcce woon parce que ñoom dañu ne alquran jooja mat na dix-sept mille aaya dix-sept mille aaya ñun alquran jii ñu yor di ko jàng lan lan la six mille ah six mille Qui 1636. 63. ah 66 mais am nañu bind 36. al muhim li ma bëgg a wax nañu nañu d'accord rek ci chiffre bi nga xam ne kenn wuute mooy ca mooy 6000. 6000 yu tegal mooy aayay alquran yi ñu yor di jàng ñoom ñu ne a alquran ju mat ja yàlla wàcce woon. dafa nekkoon dix-sept mille aaya ñu ne képp ku woote woon ne am na alquran ju mat ku dul ali ibn abi talib ak ay sëtam ak fukki imaam yooyu ak ñaar nga xam ne moom la ñu askano la mu waxee du dëgg nga ne ne waaw ana alquran ju mat jooja nag tey ñu ne kooku mahdiyul muntasar mi nga xam ne dafa làqu di feeñ ci mujjug jamono moo ko yor bi maanaam kon jullit yi jaamuwuñu yàlla fi mu ne ci baas bu wér lii yëpp mbokk yi ci fan la tegu ci profito ci fitna yi xew ci diggante saxaaba yi jéem leen a jéem yàq seen image ci bëti xeet wi ba dootuñu méritoo toxal diina yàlla ndax kon ñun waruñoo waxtaane xew-xew yooyu ak li muy metti metti delloo si ko dëggantaan ci raay bi pour saxaaba yi des ci seen noblesse ga ñu desoon seen sell ga ñu nekkoon seen njub ga ñu nekkoon ñu teg image bu leer bu set boobu ci kanam nit ñi ndax loolu du nekk warugar kon warugar la ak li mbir mi metti metti ñu waxtaanee ko waaye ci yéene ju sell jooju ci jubluwaay bii ma wax benn ñaareelu jubluwaay boo war a tax ñu waxtaane jaar-jaar saxaaba yooyu ak jafe-jafe ya amoon ci seen diggante ak lu muy metti metti mooy ñu xam ne yàlla dafa bindee àdduna noonu ay jaamam ji jaar mu am ay nattu yuy jaar ci seen kanam nekk ay seetuwaay ci ñii ñëw ci gannaaw nan la xewee woon nan lañ ko seeree woon résultat yu mujj ya la woon njàngat mañ ca war a jëlee yàlla subhanahu wa dafa dogal doxalinam noonu la mbir mi day dem ak ñëw moo tax ba muy digal yonent bi sallallahu alayhi wa nañu nettalil jaar jaar yemu ñi fi jiitu woon pour ñu xalaat seetantal ko la faqsusil qasasa laallahum ah laallahum yatafakkaruun netti la nit ñi jaar-jaar yi fi jaaroon ci ñi leen jiitu woon ndax ñu xalaat ci ndax ñu jëriñu ci bal mbir ma romb na loola yàlla subhanahu wa taala xamal nañu ne nettali yooya ak niitukaay la ak jaarukaay la ak waar la laqad kaana fi qasasihim ibratan li ulil albaab maa kaana xadiisan yuftara walakin tasdiqa allati bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan li qawmin yuminuun yàlla subhaanahu wa taala mu ne ñi fi jiitu seen jaar-jaar yi ma la nettalil waara nga ca ci boroom xel yi duhul waxtaan yu ñuy fent di ko sos di ko animer ay jataay waaye dafa ñëw ngir dëggal lu jiitu woon nekk nag aw yoon wu xam ne bu ci nit ñi niitoo mu nekkal leen ak njub am ceeg yërmande itam waaye pour kan pour ñi nga xam dañoo gëm kon ñun dañu ci yàngee ne saxaaba yi du ñoon ay malaaka ba rëcc-rëcc du am ci ñoom ñu jàngee ci ne du ñu ay yonent ba ñu naan maasumun lañu wa bittaali du ñu nangul rafida chia yi li ñu wax ne seen fukki njiit ak ñaar yooyu maasumin lañ déedéet gannaaw duhuñu maasumin nag te du ñàkk ci seeni jaar-jaar su ko defee ñun ñu dalal sunu xel ci yéen ne ñun itam mën nañoo dund diina mën nañoo ànd ci diggaale léeg-léeg ay ñagas-ñagas di am di rëq-rëq di am léeg-léeg ñàkk a juboo di am waaye loolu génnewuñu ci lislaam warul déraper itam sunu yoon wi nga xam ne moom lañu ñu dëgg malee aljana te bëgg caa yegg ndax ñi ñu gën fuuf muccuñ ca woon kon nag ñàkk caa mucc du njombe waaye nag nañu xam ñañu jiitu nañ ko seeree woon ba sax ci seen diina ba sax ci seenu màndu ba sax ci seenu fonkante ak respecté wante comme ni ngeen ko déggee ci dars bi weesu génn ca fekk seen xola ngi féex kenn ku nekk ci ñoom continuer di yéene morom ma aljana comme ni ngeen ko déggee woon ci waxu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ne maa ngi yaakaar ëllëg yowma alqiyama man ak Subayra ak Talha ñu bokk ci ñi yàlla de wax naan wa nasana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururi mutaqabilin damay rocc li nekkoon ci seen dënn ya ci bañante wala merewante wala ñàkk jubo ñu nekk ay mbokk toog ci fauteuil aljana yi jàkkaroo Alioune kon waxul benn yoon gisul benn yoon xalaatut ne taxawaay jii war na ko boole ci waa aljana te boole Zubayr ak euh, euh, talaxa ci waa safara abadan kon ñu itam ñu jàngee ci ne réeroo gu mën a am sunu diggante ak lu mu metti métti bum ñu wàccee tege ci yoon bum ñu wàccee mandu ci sunuy mbokk bum ñu wàccee rafet njort ci ñoom bum ñu jural ñu foogee leen lu dul ay julit wala da leen kalaase ci fu aljana su fekkoon yu ne mel jaaru ci saxaaba yi ñun ñu ñëw seen gannaaw ñu dajee yu ne mel dañuy jàpp ne kon lii waru doon a am kon wàcc nañu diina ñaare bi du ñu am référence yu ñu dellu ba mën a corriger suñu bopp teguwaat ci yoon kon war nañoo jàngat seen jaar-jaar yu metti yooyu ngir ñu nekkal ñu royukaay ca nañ ca génne génn gu sell googu waaye ñetteelu jubluwaay war nañoo yóbbu ñu jàngat jafe-jafey saxaaba yooyu mooy lan mooy jubluwaayu corriger waat pas-pas yu yàqu yi ci mbir moomu pas-pas ak gisin ak déggin yu yàqu yu jàdd yoon yi am soqeekoo ci xew-xew yooyu ñu corriger waat ko tegaat ko ci yoon boo seetloo ñu bari ñi nettali fitna yi jaar ci diggante saxaaba yi ñaari kaa lañ leen def rek camp bu jub bu sell ñu féeteeg ñoom camp bu jubadi bu dëng bu salte ñu def leen ay ennemi mel na saxaaba yi ñoom seen bopp noonu lañu dundee woon dañoo dund nekk ñaari camp yu féewaloo ba kenn du mën a keppaaru ci keru morom ma gisin yu jàdd yoon yooyu ba def leen ay tendance ku ci far ci benn kuréel sañ a wax lu ñaaw lu nekk ci beneen kuréel ba wa bil axas ñi wax ne dañoo far ak Ali ibn Abi Talib sañ a wax lu bare bare lu ñaaw te loolu ñu koy jëmbat ci xeet wi amaan na ña ko ràbb ñoom seen jubluwaay la seen yéene ju bon la waaye ñu koy ràbb ci biir xeet wi ba ñi nga xam ne sax jubluwaay bu sell bu rafet lañu amoon ci saxaaba yi danañu ànd ak ñoom ca gisin woowa ca déggin woowa ca pas-pas booba an jahlin fekk dañ koo réere ndax ñun dañuy seetaan ne du wax rek ci fitna yi doxoon ci saxaaba yi ndax dañu ci bëgg a jàpp suñu bopp seetaan pas-pas yooyu continuer di yàqu rek par erreur ci ñu bare bari ci xeet wi kon nañ ci waxtaan waaye sàmm nag réegal yi réegal yi ba ci jiitu mbokk yi mooy ñu nangu sosu ñay sos ne dañuy sos waaye bum ñu jural nag ñu wut partenaire ci diggante boobu féete ak ñi contrôle ñali wala yëkkati ñi doyadal ñali suñu jéppi gu ñu jéppi chiit yi ndax wax yu ñaaw yi ñuy wax ci Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak ñeneen ñu du ñoom ci saxaaba xam gu ñu xam seeni fenn yu rëy loola bum ñu jural ñuy wàññi dara ci dayo Ali ibn Abi Talib ak ña àndoon ak moom façon bu jafe la waaye mooy juste milieu bi jullit war a jaar nag juste milieu bi jullit war a jaar mooy yu ñaaw yooyu yépp gaa ñi di wax ne dañoo farak Aliyun di ko wax ci ñeneen ñi ci saxaaba yi ñun dañuy jël mbalit moomu yépp xapp ko ña koy wax waaye nag ñu setal Aliyun ak ña mu àndat setalin wu mel na bi ñuy setal Aboubacar ak Omar ak Ousmane mooy suñu warugar ñun naka noonu safaan ba tàggat gi ñu tàggat ñu bare bëri ci xeet bi gëmloo leen ne muawiya ak ñu àndoon ak moom ak ñi àndoon ak aïcha ak subayr ak ñi mel noonu rebel lañu nii lañu mel naa lañu mel jël sikk bu ñaaw bu nekk xapp leen ko nañu it nangu ne loolu it erreur la lan mooy suñu waru gar ci ñaari tendance yooyu ci saxaaba yi pour suñu njàngat leer mooy lépp lu ñu ñëwal bàyyi ko ci kenn ci saxaaba yi te mbir ma nangu ñaari maana maanaam mbir mi ñu man koo jorte woo jortu wu rafet man koo jortu woo jortu wu ñaaw nañu écarté jorte wu ñaaw watti jortu woo ko jortu hin wu rafet mbir ba nga xam ne dafa ñëw sax nag jógee kenn ci saxaaba yi te amul ñaari maanaa yu mu mën a làmb waaye benn gisin wu ñaaw rekk la mën a làmboo d'accord danañu nangu gisin wu ñaaw woowa waaye ànd ak gëm ne njuumte la ijtihaad la doon def foog ne nii lay daboo ngërëmul yàlla mu juum jaar ca loola su ko defee mu am benn tiyaaba al minhum له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ kenn ku nekk ci ñoom dañuy gëm ne mujtahid la woon amut benn position bu muy taxawee même bu position ba ñëwee ci mandarga bu xam ne ñu koy firee lu dul lu ñaaw amul interprétation buñ ko mën a joxee bu rafetit nañu gëm ne intention ba ko ca yëkkati woon moom jubluwaay bu baax la woon ijtihaad ngir wuti ngërmul yàlla ca loola la woon mu juum kon dootul am ñaari tiyaaba benn tiyaaba lay am maa ba waaye bàkkaar du ko ci jële lii dafa war a nekk sunu njàngat bu ñuy laabalee pas-pas yu yàqu yi nga xam ne mujj na xeet wi ñenn ñu nekk am na benn kuréel ci saxaaba yi bu xam ne amal nañ leen rànkin am na ñu wax ne dañoo farak Ali ibn Abi Talib même bu ñu yeggut ci chia yi sax ci ñun sunna fii ñu amal ranking Muawiya amal ranking uh, Abu Sufyan Amr ibn Aas ak ñeneen ñu dul ñooñu erreur la wallahi dañu war a delluwaat jàngiwaat sunna bu baax Muawiya mi nga xam ne moom la gaa yi gën a def sàmba si reytaan nañu fàtte nañu fàttaleku lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci moom allahuma ij'alhu haadiyan mahdiyan waxti bihi xadis bi mu ngi ci sunan Tirmisi mu wéral ko ku mel na Cheikh dina Albani ba mu ñëwee moom it daf ko wéral yàlla yàlla na nga ko def muy ku jub kuy jubalaate ku ñuy jubee ci moom yàlla na nga gindi ci moom ñaanu yonent boobu da ngeen yaakaar day neen yonent bi ñaanam googu da ngeen yaakaar ne day neen am na ci ñun ñu boot ci seeni làmmiñ ba mu toll ne jaasi jëmale ko ci lenn ci saxaaba yi suñu doon jëf seen giir gi dund seen jëf munta dab mel na atum muawiya wala ku ko ku ko gën a sax kon loolu dañu koy écarter ci sunu xel pas-pas la bu xam ne dañ ko war a dàq ci suñu xol waaye dañ ko war a faxasal ñi nga xam ne itam yóbbuwaale nañ leen ci lënt tuur leen lëndam ba ñu gis-gisin woowu kon mbokk yi yii bu dajee danañu nangu ne jàngat jaar-jaari saxaaba yi ak lu mu metti metti waru gar lay doon waaye nag ñetti jubluwaay yi na tax ñu jàngat ko jubluwaay bu njëkk bi comme ni ma ko waxoon mooy ngir défendre leen jubluwaayu ñaareel bi ñu nekk sunu seetuwaay ci ay jafe-jafe yu ñëw suñ jamono te xam ne doxalinu yàlla luy répété la na mu amee ca ñoom amoo ci ñu ko jiitu noonu lay wàcc see ci ñun nañu fexe ba ñoom nañ ko boole woon ak sax ci kaw yoon ñu nit ñu boole ko sax kow yoon seet sabab ya ko waraloon ñu koy moytu kemtalaayu kàttan nuñ ko seeree woon ñoom ñoo jëm ko seeree noona résultat yu rafet ya nga xam ne génn nañ ca ñoom ñu génn ci résultat yu rafet yu ni mel waaye mu bari bañ a jur ak yàqute ba faw su ko defee ñetteel bi mooy bi ma wax mooy defaraat pas-pas yi nga xam ne yàqu nañu ci saxaaba yi ñu bari exploité ko noonu lislaam yi ci façon bu xam ne ñoom it dañoo am intention comme ñi nga xamee ne ñun war nañu am jubluwaay ci jàngat gi ñoom it dañoo am jubluwaay bokk na ci jubluwaay gu gën a pire ci noonu lislaam bi mooy yéen jullit yi na ngeen xam ne dund lislaam ci alquran ak sunna mu ngi yemoon ci jamonoy Abubakar ak Omar foofu la lislaam yem gannaaw ga la ca tegu yëpp ay tuuy tuur deret la ay yàq la ay rayante la ay sacrifice ay ruux la kon nag na ngeen xam ne dundug lislaam dund état islamique moom jaratut woote jaratut xalaat ndax lii rek lay jur lii rek la na a jur tuur deret la nar a nooneel la nar yàq ci kaw suuf la mën a nar a jur l'islam ba walaa baloon mu ngi yemoon ci yonent bi ak Aboubacar ak Omar waaye ba lool a jàlle foofa la l'islam jeexee baawaanal deret moo fi des esprit boobu la bëgg a jëmbat ci xeli jullit yi ndax su fekkee dañu wane ne gannaaw loolu yëpp yii rek a fi xaw ci lii mooy l'islam moo tax ngay dégg ñu bari ci ñoom di wax naan l'islam dafa taxawee ci jaase l'islam dafa taxawee ci imposé nit ñi tuur deret kal laa wakal laa la seen esprit boobu seen jubluwaay boobu mu ñu ko may kon damay daaneel ci tomb bi ne bokk na ci la ñuy dimbale ngir ñu mucc ci kàmb yooyu ñu gasal ñu mooy ñaari mbir benn bi soo melee ni man sa alawa guddut teel saw làmmiñ bul jàpp ne am nga xel mu la may ngay analyser ak di interpréter ya xewoon ci ñoom teel sa làmmiñ xamal ne ña nga naw ñu gën a nekk ka nga may xam-xam am na ñu leen rawoon te ñemewu def li nga def jëlal misaal ku mel ne alxasanul basri rahimahullah alxasanul basri yi buñ ko laajoon ci fitnaay saxaaba yi lan lay wax dafa naan aa ah, ñooña de seeni xew kew dafa nekk lu xam ne yàlla musaloon na ci ñun sunuy jaasi yàlla musal na ci sunuy jaasi kon ñu nit duñu ci taqal sunuy làmmiñ seeni deret yàlla musaloon na ci sunuy jaasi kon ñun duñu ci taqal sunuy làmmiñ soo melee ni man yemal foofu ña yàlla may ñu xam te xàmmee la nga dégg ca ñoom nga jàpp loola gëm ko te gëm ne ne yegguloo ci niwo booy demee di nettili ak di interpréter ñaareel gi su fekkee yàlla warsagal na la nga nekk ku xam ne sa niwo alhamdulilah bu kawe la ci xam-xam sa tànk dëgër na xàmmee nga mbir yi sa waru gar mooy da ko leeral la ca am nekk seetu bu ñu niitoo ci sunu yoon wi ñu jëmee aljana nga koy leeralal nit ñi la ca noon ya taqal ci ay tilim-tilim nga faxas ko défendre deru saxaaba yonent bi sallallahu alayhi yi ñaari taxawaay moo ci war a nekk sunu taxawaay balaa may yëkkati jataay bi danaa toxu ci googu wàll ñëw ak ci wàllu gu ñu jege lool gu ñuy dund fi nekk ne te manuma koo noppi mooy ci ngeen yëg walla ngeen ñàkk yëg xeetu lislaam fan yii ñu ngi dund épreuve bu méttee metti bu xam ne depuis mille neuf cent soixante deux dunduñu ko ah. un demi siècle dajeguñu ak lu mettee nii yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga ne ba ko yàlla di rañaane masjidul haram la jógee jaar masjidul aqsa soog a yëg ci asamaan xam ngeen ne yàlla bi mu farataalee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diiru mu nekk makka ak sax fukki weer ak juróom benn yemu njëkk def madina masjidul aqsa la doon jublu ci julli moo doon xibla bi xam ngeen ne ñetti barab yi islaam jox tànneef ñu war a takk am tukki dem fa ngir ngëneel ñetti barab la masjidul haram ba ca màkka masjidu nabawi bi ci Madina masjidul Aqsa Màkka boo fa jullee nga am téeméeri junne Madina boo fa jullee nga am junne masjidul Aqsa boo fa jullee nga am juróomi téeméer jàkka jooju mooy ñaareelu jàkka ju ñu sampal yàlla ci kaw suuf ci hadis bu wér yonent bi sallallahu alayhi wa bañ ko laajee ban néeg la ñu njëkk sampal yàlla ci kaw suuf de ko jaamu daf ne kaaba gi ñu ne ko ban moo ca topp mu ne masjidul aqsa lan moo dox seen diggante mun a ñeen fukki at jàkka jooju tey yahood yi ñu ngi ñu ngi koy def n'importe quoi depuis aljuma ji weesu la di la quatorze ci weer wi ba ñu xëyee dañ koo tëj def ay baaraas tere jullit yi ñu fay dugg ñu fay dugg di nodd walla di julli ña nga xam ne ñoo jiite waqfu islam bi nga xam ne moo doon seere jàkk jooju euh, seen njiit Cheikh Abdoul Azim déclaré na solennellement ne yéen julli nii na ngeen xam ne tey dara nekkatul ci suñu loxo ñun lépp mu ngi ci loxooy yahood yi ñu ngi koy foxe nu leen neexee même bibliothèque bi nga xam ne ndoneelu l'islam depuis ci jamono bi ñu commencé bind nga xam ne ba tey am na téere yu xam ne loxo lañ ko bindee kenn moolu ko ko ba léegi bibliothèque yooya tey yahud yi ñu nga ciy foxee nu leen neex ñu nga ciy foxee nu leen neex yemuñu ci loola ñañuy maate ci dóor ci gaañ ba même a Cheikh Ikrama ca Ikrima Sabri mi nga xam ne moom mooy élimaanu xatibu jumaa jooju di masjidul aqsa gars yi daane nañ ko di ko maate ak seeni tànk di ko dëgg ak seeni tànk bokk nag ña cee ñu dul ñooñu tey tey jii may wax ak yéen accrochage bi gën naa metti seen diggante jullit yi ba lu bon bon rey nañ ca ñett ci jullit yi booleeg ay diiseen yu xam ne blessé nañu leen loolu ci kanam bët ak noppi organisme internationaux yi nekk ci àdduna bi yëpp mbooleem la ñu naan Nations Unies conseil de sécurité même sax unisco mi nga xam ne moo war a seere moyen mondial yi ak yu dul yooyu suñu état yi damay ragal su fekkoon waxuma ko fii boo saagane ñu bari ci yéen yëguñ ko même pares bi sax sël ma xaal nañ leen mbokk bii mettit jàkk jooju ak fi mu toll ci lislaam lii dafa am ci loxo yi ay yahud mu gën a ferndeel la yàlla waxoon ne la tajidanna ashadda annaasi adawatan lilladina amanu alyahuda walladina ashraku da nga fekk ne ñi gën a tar nooneen gu ñu ëmbal julit yi mooy yahudi ak bokkaalekat yi aaya bi firndeel na ko maanaam réalité bi firi na aaya boobu kon mbokk yi suñu waru la li ñu mën a dimbalee suñu ñaareelu xibla boobu ñu dimbalee ko ko lañ mën a dimbalee suñ mbokki jullit yooya ñu dimbalee leen ko hay haata hay haata lu ñu man tey ñaari yëf lañu man dénoncé ko ba mboolem ñi ko yëgu doon yëg ko ñu jëmbat yëg-yëg bu màgg bi nga xam ne borob boobu am na ko ci lislaam ñu jëmbat ko ci xoli jullit yi nga xam ne yëguñ ko woon dekkal ko ci xoli jullit yi nga xam ne dafa doon nelaw boole koog di dékk sunuy loxo di di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu gaawee laabal néegam boobu ci loxo yahud yi mu sellal néeg booba teg ko ci loxol jullit yahood yooyu di noonu yàlla di noonu diinaam daan fi rey ay yonent ñaan yàlla subhanahu wa taala mu gaawee mbugalam ak meram ci seen kaw ba noppi